maa ngi tudd Néné Daaf Néné Gaye Siri Daaf madame Camara euh, nekk chef de service régional du tourisme du pôle Thiès Diourbel. bon sama parcours euh, gudd na guddul parce que dugg naa ministère du tourisme depuis 2001 mais avant le ministère du tourisme j'ai fait pratiquement euh, lépp loo xamante ni laal na ci secteur du tourisme parce que liggéey naa ci agence de voyage. liggéey naa ci compagnie aérienne def naa stage Air Afrique au niveau de l'aéroport liggéey naa Sénégal bi voyage boo xamante ne c'est un tour opérateur euh, liggéey naa Sénégalair mi nga xamante ne maa ngi ci profité di jaale suñu directeur général bi wàññeeku fan yi muy Pa Gérard Diop euh, jóge fa nag daal di dem bitim réew nekk États-Unis def fa cinq ans après ñibbisiwaat sama réew parce que yaakaar naa bu réew mi soxlaa ñëpp war a ñëw jàpp ci pour euh, parce que li ngay uti feneen wax dëgg fa yàlla boo toggee sa réew di nga ko fi am te man gis naa loolu parce que la ma uti ji woon bi ma toggee fii macha allah yàlla jàppale na ma te ba tey ma ñëw jaar ministère du tourisme jaaroon direction bu ñuy wax direction de la profession et des activités touristiques muy DPAT tey mu nekk direction de la réglementation touristique muy DRT ma jóge fa nag ñu andi ma au niveau de la région de Thiès en 2003 en qualité d' adjointe du chef de service régional du tourisme de Thiès. ma jóge fa ñu confirmé ma en 2009 au niveau de la région de Fatick ma def fa 8 ans ñu delloo si waat ma Thiès ma nekk fi chef de service régional. waaw euh, dëgg la gis nañ ne ça fait 9 mois. depuis mars presque mbas mi dugg ci réew mi laal secteur d'activité yépp bi mu ko laalee nag ñu ngi sant yàlla parce que yàlla lu mu def moo gën lu mu deful euh, ñu ci sant bu baax parce que li may wax rek mooy mbas mi tax na ku xam ku nekk xam ku nekk xam yow yaay kan ku nekk xam kan mooy sa mbokk ku nekk xam kan nga war a àndal ak ku nekk xam fooy teg sa tànk su dee nit nga donc bi mbas mi ñëwee macha allah ñu am président la république muy le président Macky Sall mu am vision xam ne njaboot gi njabootam la mu jukki ci nag ñu mel ni secteur di tourisme yàlla dimbale ñu ñu am ministre bu am vision muy la ministre Aliou Sarr di profito nag di def euh, di def euh, di di di di sant di gërëm di ñaanal ñu fi jaar ñëpp depuis Ousmane Masseck Ndiaye wàcc ba ci Abdoulaye Diouf Sarr. jaar ci may euh, Maimouna Ndoye Seck ñëw ci euh, euh, sama ministre Thierno Lo ñëw ci Aminata Lo wàcc ba ci Mame Mbaye waaye nag ñëw tey jii ci Aliou Sarr ñi fi jaar ñëpp macha allah ku nekk bàyyi nga fi sa empreinte teg nga fi tras ku nekk liggéey nga ci la président jox def ci liggéey bu am solo waaye yàlla dimbali ñu ba nag. li nga xam ne moo ñu gënoon tenir à cœur dans la région de Thiès muy les plages surtout parce que quand on parle de destination euh, balnéaire plage bu ci amatul yaakaar naa destination balnéaire amatul boobu ba léegi nag ñu jóg ko wàcc di daanoo ko jóg ba yàlla tey may nañu presque 7 kilomètres de plage yoo xamante ne mu ngi nii di dellu si ci sali te yaakaar naa en tant que journaliste dem ngeen ba gis ko kon ñun sali wax dëgg fa yàlla président la république wàccoo na ak ñun. ndax ku doon jooy plage amul touriste yi ñëwatul te plage bu dellu see destination balnéaire dellu si touriste yi dellu si euh, acteurs yi kontaan te acteurs yi li tax ñuy kontaan mooy économie bi dina jógaat ku nekk jotaat sa emploi ba nga xamante ne on va retrouver notre lustre d'antan que la destination la Petite Côte une destination vraiment balnéaire waaw président bi loolu jotee dafa dégager une forte somme ñu jukki ci 15 milliards yi nga xam ne moo ñu intéressé tey dans le cadre du crédit hôtelier parce que am na après crédit euh, transport aérien amoon na fi tamit parce que amoon nañu logé ci hôtel yi Covid bi ñu war leen rembourser seen xaalis yooyu yëpp a ngi ci woon mais 15 milliards daal génne nañ ko teg ko ci table ji ne il faut ñu gunge euh, entreprise yi nga xam ne ñooy yëngatu ci mbirum tourisme te boo waxee entreprise bu yëngatu ci mbirum tourisme euh, hôtel a ngi ci. cangé je dis hôtel c'est pratiquement nit ñi dañuy wax hôtel mais hôtel dafa bëri ay pàcc pàcc am na hôtel am na auberge am na campement am na résidence donc ñooñu ñooy les établissements d'hébergement touristique ñu jógeeti ci ñëw ci agence de voyage yi parce que ñooñu tamit ci la ñu bokk ñu jógeeti ci ñu ne ah ñooñu doyul nañ ci boole guide ñu ne déetawaay ñu jël restaurant touristiques yi ñu ne déetawaay ministre ci xarañteem waxtaan ceeg la commission bi gérer affaire crédit hôtelier ñu ne nañu xool nañ la ñuy def ba boole toute la chaîne de valeur toute la chaîne de valeur de l'hébergement touristique jusqu'au vendeur de gerte caaf comme on a l'habitude de la dire donc ñoo ñëpp jaar ci artisanat ak ñëpp loolu moo ñu dimbali ba tey ak ci suñu gis mbuur ni mu toll gis Petite Côte ni mu mel ci tourisme te fii ku fi yeewoo comme ni ma tàmm di wax tourisme ngénte na fi tourisme euh, dëj na fi tourisme tabax na fi kër tourisme créé na fi entreprise tourisme defar na fi ay kër macha allah kon fii bu ñu nee impacté nañu ci tourisme kon da ngay xam ne foyer yu bëri entreprise yu bëri impacté nañ ci Covid 19 bi. donc ñu ñu ñu ñu ñu def ñu ci nag euh, euh, wàll bu rëy moo tax ba tey presque Sénégal artisan yëpp jot nañ Sénégal vendeur d'objets d'art yëpp jot nañu. mais fii moo desoon parce que fi ñeneen ñi di amee 100 ki 200 ñun fii da gis toute la petite cote y a beaucoup de vendeurs d'objets d'art y a beaucoup d'artisans ba fan yi la ñu ñëw comme première partie bi génnoon na ñu ñëw nag ci deusième partie bi ba ñooñu ñu ngi nii am na ñu commencé jot seen xaalis am na ñoo xam ne signé nañ seen convention de prêt am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw di jël si euh, seen notification bi leen mën a permettre ñu dem jëli seen seen seen seen seen ku nekk 500000 lañ la jox parce que nag euh, euh, bu ñu waxantee rek wax dëgg fa yàlla lépp luy artisanat am nañ ministère. mais ñoom seen spécificité mooy dañu nekk ci site touristique te site touristique yooyu euh, ñi fa nekk da ngay xam ne mbas mi dina leen laal moo tax nag ñu jukki leen jox leen ku nekk par 500000 500000 muy les acteurs les petites moyen moyennes ak ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci artisanat beeg euh, yeneen secteur d' activité yi nga xam ne non en fait affaire bi du woon recensement affaire bi dañu euh, wax wax ko ci média yi def ci ay réunion ak. Euh, le directeur de la réglementation bi ñëw dans la station balnéaire ñu toog waxtaan ci ne képp ku nekk ci chaîne de valeur bi mun nga ñëw au niveau du service régional du tourisme comme nous l'avons fait dans toutes les régions du Sénégal ngeen bindu fa bindu bi nag dafa amoon ay critères parce que kër boo ci dugg mënoo ñëw rek ne dugg ci buntu kër gi noonu mais dañu jaaroon ci seen euh, ay bureau yi ñu yore ku mel ni village artisanal le village artisanal ils sont très bien organisés. Le centre commercial, ils son très bien organisés. Le réseau des artisans et tous les villages artisanaux qui son sur la petite côte. Donc ñun ñu jël mais li olof di wax xalangu dajul suuf boo amulee ci tourisme rek di nga am ci ministère de l'artisanat parce que wax dëgg fa yàlla ñun ñëpp a yem ci ñun te état nag benn la kenn mënu ko xaar ñaar. boo amul ci kii rek boo amee ci kii mel na ni kee moo la jox donc ñun noonu la ñu réfléchir ba macha allah euh, Sali yaakaar naa ko fa dugg tey euh, boo xoolee nit ñi da ngay sant yàlla parce que gis nga ni y a un souffle d'espoir qui renaît dans ces sur ces visages là. plage a ngi ñëw euh, état jàppale na cinq cent 500000 te mu ngi fexe ba promotion interne bi dox mi ngi fexe ba ñu xool naka la ñuy defee relance bi donc yooyu yëpp ay yoo xamante ne xëy na. mbas mi am na ay contraintes yu bëri waaye permettre nañ ku nekk xool ni ngay defaraate sa toogaay. waaw en fait mbëkk mi phénomène nationale la du doomu Mbour kese doomu Sénégal yëpp la je pense que ces jeunes là dëgg la euh, ku bëgg a tukki ku bëgg a dee ku bëgg a fireeku ku bëgg ku bëgg munoo ci ñoom dara mais nañu xalaat comme ni ko nit ñi di wax seen waajur yi tax ñuy def. yaakaar naa toog ci sa penku yaay mu lay gis ngay foor dërëm ak ñaar dërëm wala mu lay jox sax stikku kafe ngay naan moo ko gënal nga won ko ginnaaw dootul gis sa koor wala nga won ko ginnaaw mu lay wër du xam ci loo ne te yow ci sa bopp loolu yaakaar naa ne du la neex kon nag ku nekk na nga xool sa bopp Sénégal dëkku teraanga la dëkku diine la yàlla am na lu mu fi def day métti métti rek waaye tôt ou lépp dina baax te ku xool li fi feeñ fan yi macha allah war nañu gën a delloo suñu xel si yàlla. pétrole am na autorité yaa ngi góor góorlu ci lu ñu mën ku nekk ca fa nga ne yaa ngi def li nga mën pour jeunesse bi gis ci seen bopp phénomène bi fu amoon la du lu bees xëy na léegi réseaux sociaux yi dañu bari parce que ña daan dem daawuñu yor portable vidéo naan egg naa wala maa ngi ci ndox mi wala sonn naa mais léegi dafa gën a accentué wu parce que dañuy jël vidéo dañuy jël seen portable yi di di di di def ay ay ay ay ay image di ko yónnee mais amoon na fi donc jeunesse bi nañu gëm seen bopp parce que gëm sa bopp ci lii lañ koy xool ci lii lañ koy xaar gëm leen seen bopp gis ngeen fi ay exemple yu dul jeex yu ñu leen mën a jox yoo xamante ni fii la ñu ne ci réew mi sonn fi jàng fi tekki fi am ñoo xamante ne jànguñu euh, jàng nañ arxuraan wala liggéey nañ gëm nañ seen bopp tekki nañ fi c'est pas parce que tukki nga nga tekki nga maa ngi nii l'exemple patent c'est pas parce que dem naa États-Unis tekki naa États-Unis dama ñibbi si Sénégal fii la sama wërsëg nekk ma dellu si fi te nag li gars yi di wax war nga gëm képp ku dem boo ñibbisee ñi lay wecc fii la ñu ne képp ku dem booy ñibbi boo cangee paas ñi lay jox xaalis bi fii la ñu ne gëm sa bopp ci lu ne am ñaanu waajur te liggéey ngir sa bopp ak ngir sa askan te bañ a sànq sa bopp ngir sànq sa askan tuutal sa bopp tuutal sa askan. sama mot de la fin nous sommes dans un secteur vraiment impacté mais nag ku nekk mooy li may wax mbas mi tax na ku nekk xam yow yaay kan xam ñoo war a àndal xam foo war a teg sa tànk. di lancer un appel solennel à tous les Sénégalais que ñu kenn mënatul dem sax far ku ne yaa ngi toog sa kër mais na ñu fas yéene xool man surtout ci xale yi parents yi na ñu jël xale yi di leen tàmm di yóbbu vacance dans les structures hôtelières di leen yóbbu ñuy def ay visites dans les sites touristiques parce que tourisme nag du hôtel kese soo demee Joal di nga fa fekk maison Senghor di nga fa fekk cimetière Mixi nga continuer tuuti dem Fadial di nga fa fekk le grand baobab nga continuer dem dans les îles du Saloum vraiment très paradisiaque nga enchaîner continuer dem Tamba dindi feloo nga fa nga dem Ziguinchor macha allah dem ay karabaan gis loo xam ne musul am fenn donc ni ñu ko tàmmee di waxee rek ministre di ko wax tout le temps dans ses interviews le ministre Aliou Sarr nee le Sénégal c'est le monde en miniature en matière de tourisme lépp looy uti bitim réew mu ngi fii bu dee hôtel bu rafet boo ñëwee fii sallie di nga gis hôtel bu martaba bu am cinq étoiles boo fa duggee ñeew ñu benn hôtel bu nekk bitim réew soo demee Dakar la même chose nga ñëw nag Touba dem Tivaouane la tourisme religieux nga dem Saint-Louis ah euh, juuja nga fa qu'est-ce qui manque rien ayons la volonté de connaître notre pays ayons la volonté de croire en nous sa gëm sa bopp laa il faut ñëpp euh, def ko ci seen bopp xam ko ñu commencé ko ci ndaw ñi ba nga xamante ne dootuñu ñee kenn parce que le Sénégal ne peut se développer et se faire développer que par sa population et par ses enfants di leen remercier yéen tamit ci seen seet bi ngeen ñu seet si tey te di ñaanal seen télé bi yàlla def ko mu bokk ci télé yi ñu gën a seetaan